ñambaas du dañ na yàqul sër président Souleymane jox leen trente tonnes pomme de terre DG Dieye teg ci cinq millions man tegal naa leen ci deux mille poussins ak billet marque candidat premier ministre maa leen di indil yéen ñii waa FEDES ñu bukan Amadou Ba premier perempuan nena mom moom du leen yóbbante ndax xam na ne kàddu Souleymane doo ko kon lumu waktu wax ci Amadou Ba rek jàpp leen ne dafa mel ni premier ministre moo wax moom Souleymane Ndoye bitim réew ya yemul ci ben réew yemul ya ci ñaar yemul ya ci ñett yemul ya ci ñeent waaye fukki réew ak juróom muy mu yebal fa ay ndaw ne kooku nag doyul ku ne kon bu doon loolu dong kese képp mooy tax ngeen war a def moom li mu namm ci président Macky Sall ngeen def président def na li mu war a def yépp ci diir xam ne mi ngi def cof nañu ci teraangam ba ñu lii ñu mën a def DG Dieye wax na ko sànq bu ñu demee ba mën ba tur sunu borom dafa jaare lu bari ci loxo président Macky Sall kon loolu nga xam ne daf ko jaarale suñu loxo yi ba muy jàpp naa ne ku voteel candidat Amadou Ba defaloo ko ko moom sa bopp nga ko defal nga man bugguma cuune dama buggul cuune donc buñ mënee woon parrain bi am na ñu ñuy tudd du ma fi teew mais biñ mënee Ablaye Dieye laa ne wuu kooku day naaw damay ñëw ndax sa taxawaay biir Thiès bi ngay raam du cur bi ba yegg si fii tey dañ koo liggéey mooy honorable wax dañu fekkee sa taxawaay bokk nañu ay manifestation ay inauguration ngay liggéey seetoo dara seetoo metti na seetoo mettiwul seetoo am nga seetoo amoo danga cee nekk nekk ci nekk ci ba li la fekk fekk la ci kon nag confiance bi président am ci yow ba dénk la secteur bu am solo parce que président parmi ses politiques figurait le hub du Sénégal te hub boobu du ko jox cuune ndax réew ñaar ba ñett a ko yor sécurité terrestre

Parce que le modèle de l'économie sociale et solidaire, c'est ça. C'est un modèle économique pour mettre la personne au centre de l'action publique, mais également mettre le social au centre de l'action, tout en ayant des résultats économiques. Et ça, on ne peut l'avoir qu'avec la société coopérative.